benn oto bi am na ñu am na ñu wàcc muy 4 x bu marron bi wala 4 x bu beige bi am na ñu wàcc taalal nañu seen loxo ci kaw ku jigéen ki taalal na loxoom ci kaw loxo ca kaw daara ji daara ji way na ko loxo ca kaw génn nañu ñu ngi dem am na ñu fëllee fële tamit côté bee mais gars yi fu ne la ñuy fëllee. laa ilaaha illallah mais ñii ñoo aay fu ne la ñuy fëllee manifestant yi fu ne la ñuy fëllee. comme lamal mu waxoon fii laay toog bu funulee fii ma gis ko bu funulee fee ma gis ko gars yi fu ne ñu fële oto baa ngi avancé oto gi Mari Sagna ak DJ Malick ah, la 4 x avance à petits pas entre la police et certains manifestants qui sont à côté ñu ngi noonu taxaw nañu oto baa taxaw <laughs> voilà voilà toujours on est on toujours ah nii rek la ñoo bokk terrain bi dañuy foo kafre voilà kilifa gi ñëw na léegi nag am na ñu nekk ci oto benn bi ñoom euh, ñu ngi wax seen soxla. voilà léegi naxante nañu waat léegi nag ñu ngi arriéraat naxante bi day neex naxante bi naxan naxante la naxante la dañuy naxanteeg ñun ba ba ñu génne voilà c'est la stratégie de la police. et eh, génn génn génnal ni balaa ngay daal. c'est la stratégie de la police dañuy naxanteeg ñun ba di ñu génne par nang-nang bu yàggee nag cosaan lañ jëm ca Youssou Ndour bu yàggee Youssou Ndour lañ jëm cosaan ñi nga naxanteeg ñun defar seen ceinture seen ceinture de sécurité wala boog seen ceinture d'isol ceinture d'isolement léegi ceinture d'isolement wala ceinture de sécurité ah léegi nag euh, avancé nañu génn nañ tuuti place euh, place ONU euh, place de la nation moom ak place ONU fi mu nekk nii moom ñaari bànqaas yooyu nga xamante ni ñëpp a ko bokk ñu jël oto ban waaw oto baa ngi noonu yaa ngi biir sama gaa yi gaa yaa ngi ci biir am na ñu ñu jàpp mais manifestant yi fu ne la ñuy fële ñoom si lañ nekk mais ñu wàcce bâche yi ah, ah. nga wane ku wane ginnaaw du mën a xool ka ginnaawam mm-hmm. Mm-hmm. xoolal waaye man ah d' accord d' accord d' accord waaw waaw waaw waaw gis naa ko waaw ah, gis naa boobu gis naa li ngay wax noonu ok. caméra dafa am bëtu ginnaaw. caméra bëtu ginnaaw xamoo loolu <laughs> léegi vous avez vu la stratégie de la police. amul amul amul amul dóor amul kii naxante ba ñuy génn ndànk-ndànk ceinture de ceinture de sécurité wala ceinture d' isolement xaw ma ñoom ba nan lañ koy tuddee taaw jàppante loxo. dañu génne par ndànk-ndànk les arrestations continuent de plus belle au niveau de la place euh, de la nation wala boog place ONU euh, jege inspection d'académie bu Dakar euh, boo leen gisee yoon bi nga xam ne falaa ni wax boulevard bi nga xamante ni moo jugee côté Grand Dakar cosaan jaar lycée Blaise Diagne ak yoon bi nga xam moo jëm moo juge fi nga xam ne moom mooy Colobane maison du parti socialiste yoon bu génnee face oto gi Mari Sagna mi ngi génn léegi policiers yi dañuy génn bàyyi oto bi mu génn ndaxte ñi nekkoon ci biir oto bi génn nañu ba ñu jàpp leen ba ñu teg leen loxo waaw léegi chauffeur bi moom <laughs> chauffeur bi bokku ci. oto bi du parce que oto bi moom mënuñu ko. le chauffeur pas concerné waaw. ne oto bee ñu wàcce léegi oto bee ñu wàcce bâche yi. ñu nekk. voilà la police est léegi coow jibul bal tàqul sagar xeeñul saxaar jibul comme saxaar yi doon am mois de mars yooyu safoon na taroon na mais tey amul dara jàpp kirtim dugal ci oto. waaw ñi ñuy dàq ah? ah, ñun ñun ñun xanaa ah, non ñun moom xam nga rek mooy loolu quoi ñun moom nañ bàyyi noon nañuy wax rek nañuy wax di filmer rek léegi ñoom ñëpp les manifestants quelques manifestant yi fi nekkoon ñoom arrêté nañ leen. ak ñu doon fëllu gauche droite Sall baadoola bàyyi su ma la bàyyi bàyyi doon dégg xoolal Ablaye Ablaye Ablaye xoolal doxantu ay maçon la ay manœuvre lañ dañuy wàcc dañ accompagner bañ génn Ousmane yaa gën a xam ni yi di wax yaa ma gën a xam de barki yàlla xel maa ngi si de billaahi wallaahi xel maa ngi si yow bu baax koy woo yaa Moussa nee daa feebar feebar Abacar Chef, chef, waaw waaw voilà. on est ensemble les gars. Ablaye Seydina ñu dem ah. sama gars. mu jëlee.

voilà gis ngeen léegi presse bi génn nañu léegi dañuy bàyyi presse bi léegi ñu ngi génn ñun ñëpp ñu ngi génn ñu ngi génn waaw kooku benn benn ku raxoon la ji ci manifestant yi benn arrestation ngi noonu gars yi ku nekk ak sa rek ku nekk ak sa feem voilà mais presse bi fël na am na ko gis nga arrestation ngi noonu tamit beneen arrestation ngi noonu voilà dugal nañ ko ci oto bi y a des civils yoo xam ne tamit ñoo fi nekk voilà beaucoup de civils beaucoup de civils voilà ñi ñi ñi ñi kii sax ñi demal demal génnal ni ñi ñi ñi ñi civilu sax moo ëpp ñi sol tenue ñi civilu ñoo ëpp tenue ñi civilu ñoo ëpp ñi sol tenue mais la presse a été brutalisée aujourd'hui franchement franchement gars yi rafetlu wu liggéey bi nu mu demee tu léegi nag ñu ngi ñu ngi bu max ñu ngi bu max ñu ngi bu max ñu bu max civil yi ñoom ñooy bu max civil yi ñooy bu max ñooy ñooy ñooy tere gars yi filmer t'as vu voilà civil yi ñoom ñoo ñoo ëpp dañ ñoo rax nekk si biir la presse ah ñoom ñooy arrêté dañuy bañ ñu filmer voilà on est li ñag bi doon wax on est où là léegi ñu ngi si biir ñu ngi suñu biir tu vois voilà gis nga ñu ngi avancé ñun ñu ngi avancé ànd ak ànd ak ànd ak civil yi ànd borom borom mbaxane borom kat ye borom kat yeeg borom tengaade yi borom yëre pël yi. ne Ousmane Sonko ñoom ñoo ko xool leen. voilà gis ngeen fii moom moom moom xumu na trop trop trop ñun jóge nañu fañ nekkoon ànd ak ànd ay nit <laughs> xoolal kii xoolal kii Seyna xoolal kii <laughs> wooy ko jox ma ko jox ma ko xool leen kii xool leen kii xool rek borom mbaxane borom tengaade bi waay yow jamais xoolal ki yàqal nañu xoolal borom saak bi moom tamit di dee man di ree rek. <laughs> kii moom mi ngi ñuy filmé bu ñu filmé dañ koy filmé bu ñu filmé dañ koy filmé ah, ah man maa ngi nii côté côté côté inspection inspection place ONU place ONU nga nekk dégg nga ah, place ONU phase oni nga ne voilà léegi nag ah mën nañu photo rek ñu ñuy teg ñu ñu koy teg di ñu photo ak lu kenn xamul man ku yoole ma la am na sax kuy jaay soow am na kuy jaay gis nga kuy jaay soow yow ana borom soow bi non waxuma la de tudduma la de man kuy jaay soow da ngaa yor soow ah da ngaa yor jaay gadu soow jaay gadu caakiri ñu sonal dañuy liggéey ñuy liggéey respect moom dina am mais soo dépassé moom bu ñu la wax baax waaw waaw xam naa ne yaa ngi ci parage yi voilà mbokk yi gis ngeen ah gis ngeen euh, lii moo fi xew actuellement ñu ngi nii place ONU gis ngeen euh, check point bi ngi taxaw juste rek euh, juste journaliste yi lañ leen samp du ñu bàyyi ñu jël boulevard général de Gaulle dem fële nga xamante ni moom mooy place la nation di Colobane léegi nag place ONU fii ñu nekk jox ma place ONU jox ma place ONU mbokk yi fii mooy place ONU place ONU mi ngi nii boo leen déggee place ONU mooy rond point bi nga xam ne nii moo fëlee Colobane fële lycée Blaise Diagne di rom nii di dem Dakar di dem euh, John Kennedy Kennedy ngi nii gis ngeen check point bi euh, police mi ngi noonu taxaw gis ngeen y des gens yoo xamante ni ah ñoom dañu civilu fees del del del del del léegi nag la circulation commence léegi nag oto yi ñu ngi circuler gis ngeen rond-point place ONU la leen ah, la leen euh, Ablaye woon léegi voilà léegi nag la circulation reprend la circulation reprend les leaders yi nga xamante ni ñoom ñoo woote woon manifestation Ablaye les leaders yi ñu woote woon ñi woote woon ñee ñoom ñooy les leaders de la manifestation muy FRAPP France dégage on va on va benn benn benn benn cri de cœur ah benn cri de cœur ñun dañoo ñëw war a def suñu liggéey nous sommes des journalistes nous sommes des reporters nous sommes des caméramans nu sommes des caméras women takk der yi dañuy def seen liggéey ñun dañuy def suñu liggéey buñ ne ñu pousse leen ñu pousse buñ ne ñu taxaw leen fee ñu taxaw fee yaa a des civils sax yoo xamante ni dañoo dañoo dañoo nekk ay takk der du ñu filmer du ñu caméra ñun li ñuy wax ragaluñ ko parce que si ay site internet lañ nekk si ay télévision la ñu nekk kon boog ñun ku ñu bëgg xam nag ñuy xam léegi nag ñoom dañuy def seen liggéey ñun dañuy def suñu liggéey convenablement bu kenn tooñ kenn bu kenn xuri kenn bu kenn dóor kenn bu kenn xokkatal kenn jeex na couverture la woon ñëw nañ suñu couverture live Gozan voilà mi ngi noonu léegi nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi génnewaat comme ni ma leen ko waxee woon ñu ngi génnewaat des journalistes dañ leen di nax dañ leen di nax dañ leen di nax stratégie la stratégie la <laughs> stratégie la dañ leen di dégager xam naa après si ñun lañ jëm ah ñun moom ñoo leen ñun moom ñun ñoo leen të journalistes yi génn nañ leen xam naa civil yi léegi ñu boole ñu léegi ñu boole ñu ñu ne place ONU nag fii nag moom euh, naa ko moom Afrique ko moom xam naa ñun moom bu ñu taxawee fii place ONU organisation des nations unies xoolal borom rek. sa sa sa sa sa sa gaala voilà gis ngeen fi ñu parqué la presse la presse a ngi ne puus nañ leen dàq nañ leen ba fee ah parqué leen foofu euh, samp leen foofu mel ni coggal coggal gi gis ngeen ni ñu leen def noonu dañ leen di dàq dañ leen dàq dañ leen di génne foofu yëpp xam naa si ñun lañ jëm ñu xam naa si ñun moom lañ jëm allez dégager lañ ñuy wax allez dégager lañ ñuy wax voilà ñu ngi leen di génne mel ni coggal bu ñuy dàq mel ni coggal après nag ñun ñoo ci des ba lundi Get out! lenn lañ bañoon bëggoon ñu bañ ko jot